ak ñi yor document yi yépp ñu ngi leen koy ñaan pour ñu dem seet suñu rek soxna mbay ci ak allah baax na jërëjëf allo allo waaw man yàlla na yàlla defal yooyu yépp ci kàttanam ak baax waaw allo Modou waaw maa lay dégg waaw léegi maa lay dégg waaw waaw ma ne ma ne li may woote des ma naan la ko ne lay parce que dama lay bëgg di la bëgg di sa wax wax ji nga may wax. waaw damay bëgg a dégg sa wax. des mhm. fois day day métti ci man Modou. waaw ndeysaan waaw. Mhm. Mhm. waaw day métti ci man Modou day métti trop Modou Modou day métti ba du ma mën a comprendre Modou. waaw day métti day métti Modou day métti ba du ma comprendre damay bëgg waaw damay ndeysaan te te saa lu jot yomb rek man kay doxe yàlla. waaw xam naa Mm, mm, mm. ànd ak ànd ak yàlla rek ànd ak suñu borom yàlla rek ànd ak suñu borom yàlla rek parce que yàlla doo fi nekk bàyyi yàlla rek a fi nekk yàlla doo fi nekk yàlla gis ñun ñuy tey jii suñu bàyyi woon ak suñu bopp sax ñu xam ne ñun mënuñu dara ak suñu bopp waaw yàlla yàlla ku mu bàyyal sa bopp nga xam ne yow mënoo dara ci yow waaw man yow fi mu toll nii lan moo lay gën a metti hmm, lan ngay gën a xalaat yow ah? ma lan ngay gën a xalaat allo. allo waa Pod. waaw man lan ngay gën a xalaat. ay waay Pod damay xalaat Pod damay xalaat rek may xalaat problème bi di xalaat ñu waa kër di xalaat Pod kër gi dëpp Pod di xas sama yaay. Mhm. président Macky Sall bi ma woo téléphone. da ngaa gént. président Macky Sall mu may woo téléphone. waaw. léegi nag ñu ne ma bàyyi ñëwal wuyu ñëwal wuyu président moo lay woo téléphone ñëwal wuyu ma sori téléphone bi nag. waaw. ah mu naan la ñëwal après nga daal sori téléphone bi. waaw booba booba man sori naa si mais dañ ne ma ñëwal wuyu ñu lay woo macha allah macha allah waaw xam nga yooyu yëpp ay ngëneel la parce que xam nga njiitu réew du caaxaan. xam nga njiitu réew du caaxaan yàlla ab réew du ko jox kenn koo xamante ni matul njiitu réew te moom moo koy bind ca ca avant avant dara di xew. te àdduna lay bind ñi war a jiite réew yëpp da di bind bind temps bañ fay def ak yëpp macha allah. kàttan na leen dooleel leen ba ñu mën a yore réew ma waaw kon kooku bu demee ba woo la téléphone. ah kon nag loolu mbir la. waaw yooyu moom ay ngëneel la yoo xamante ni suñu borom moo la koy defal ci kanam incha allah rabal alamin président moom bu sañoon suba nga fanaan Sénégal bu sañoon suba suba suba suba suba suba suba nga ñibbi Sénégal moom moom moom fi mu toll moom mooy ñeewantal sa diggante ak moom rek pour nga a ñëw Sénégal fi mu toll nii moom bu sañoon tey suba nga ñëw waaw ñeewantal googu mu lay ñeewantal googu ak bëgg googu mu bëgg xam nga benn sénégalais benn sénégalais bu nekk ci ay tolof tolof mën a ñibbisiwaat ci dëkkam ñi xam nga mën a ñibbisiwaat ci réewam moom loolu la la ñeewantelee moo tax yàlla di la wan ni kat président mi ngi ci say mbir waaw mi ngi ci say mbir xam naa yàlla daa dogalagul rek waaye moom moom moom vraiment moom mi ngi ci say mbir moom vraiment mi ngi ci say mbir mooy la ma la waxoon rek ñi ànd moom ñi bëri ñooy xaw a di am ay yenn problème yenn yenn kii quoi mais moom moom vraiment moom moom lépp loo xamante ni sénégalais am na lu ko métti fenn mi ngi ciy taxaw ñeneen ñi nag ñoom ñoo liggéey liggéey boo xamante ni dina xam nga dina matale ak moom li muy bëgg waaw mais moom moom vraiment bu soñoon moom lépp lu mu bëgg rek loolu day am ci saa si mais ñoom koy dénk ñooy nekk di yéexam toloog di def yenn affaire yeeg ñoom ñoo dul liggéey daal waaw ñoo dul ko war a liggéey daal dañ ko liggéey mais dañ ko war a liggéey ak Pastef bañ ci war a am mooy des voilà mais nag président moom vraiment boo demee ba mu woyoon téléphone ko yàlla wan la ko ah moom ñeewante trop bu soñoon nga ñibbisi de wallaahi loolu man xam naa ko moom waaw ak bépp sénégalais tamit boo xamante ni mi ci àdduna bi ñoom ñëpp lay ñëwantal ku ci nekk bu sañoon wallaahi mbay mi subaa nga ñibbi si waaw moo tax nag ma ne nag da ngay a dëgër rek gën a dëgër gën dëgër rek man loolu laa lay sant gën dëgër rek waaw waaw ma ne xam damay ma di la dégg. waaw waaw waaw waaw incha allah incha allah. incha allah. waaw incha allah yal na ko yàlla dogal rek dogalal ñu ko ñun ñëpp ba soo ñu déggee rek ngay xama nga jëlee ci ñun njëriñ boo xamante ne di nga gën a mën a rek man mooy mooy sama lépp quoi que boo dëgëree rek di nga mën a muñ yëpp yi fay yi xama yi la yàlla teg yëpp di du teg nit dara lu koy metti mu continuer ba faaw mukk mukk suñu borom soxorewul noonu waaw suñu borom tamit ci àdduna pour toroxal ñu déedéet déedéet jamais waaw yàlla daf ñëw wàcce ci àdduna pour ñu jaamu ko ba bu ëllëgee bu ma ñu mën ñoo fay àjjana neex waaw loolu lañ fi suñu borom wàccee waaw lépp rek ci kaw yërmandeem nag lañ fi wàccee dafa bëgg rek ñu jaamu ko bu ëllëgee mu mën ñëw gërëm yërëm ñu dugal ñu àjjana loolu rek lañu ñu fi wàccee mais nekkul pour toroxal ñu déedéet lu métti métti métti métti métti métti nag nekkul pour toroxal ñu waaw ay nattu la rek te yëpp day jàll ci àdduna day jàll yàlla du ko teg mu continuer nit déedéet déedéet déedéet yëpp da koy jeexal incha allah lépp bu neexee day jeex bu naqaree day jeex waaw léegi waaw moo tax nag yàlla ñu yàlla dimbali rek. waaw euh, dimbali ñu sàmmal ñu suñu rakk jooju. Euh, sàmmal ñu la bu baax a baax a baax a baax ba nga mën a ñibbisi euh, ci say waajur ak ci say rakk ak say mag ak say nijaay ak say xarit ak say yëpp ñëpp gis la ci jàmm ak salaam Sénégal yëpp gis la bëggee la ci jàmm ak salaam yàlla na ko suñu borom def defal ko mboolem jullit yëpp ñu nekk ci xat-xat yëpp macha allah yàlla ko yàlla def.